ci addiya yi suñu dégg-dégg moo di ni addiya yi dafa am lu mu wone ndax li mu wone mooy boo toogee ba dégg ni addiya yi ci ñetti dërëm la tàmbalee woon ci la ko soxna Anta Ndiaye yëkkatee woon jox ko maam Cheikh Anta ni ko demal ci Modou Mbacke jébbalu ci te jox ko lii addiya mu jox ko ko nu toog a toog a toog ba gis fi mu toll ak ni mu tollook ni ko taalibe yi fonke war nañoo xam ni addiya yi am na njariñ ndax loo xay saa boo ko defee ren boo ko defee benn bu déwénee nga mën koo def ñaar bu déwén jee nga mën koo def juróom kon xam ngay loole tona la kon loolu la ñuy wax sahadata daaray ni fitalu ñaar ngémmañ da nga ciy tooñ fayu ci mooy addiya yii addiya yi nag ku dégg li nga xay moom lañ ci wax ak li ci Serigne Touba digee lépp dinga nga def dooni mukk Daaru Salaam doo nga koy laaj du ma dem ndax bokk ma Daaru Salaam déedéet yoonu yoonu yoonu weer laaj addiya addiyati way isati wa nallari kaw nu kali fali yakkun bi nallari kooku jàngkat yee ko wax noonu nag dañoo jàngul moo tax waaye kon bu ñu toogee ba nga xam ne addiya yi egsi na fii alhamdulilah rabbil alamina bi nga xamee ni yàlla baaxee na nu ba nu koy fekke di ci def suñuy ñaq fii ngeen ñëw nag tey di kër goo xam ni di kër sëñ maam moor si kab bu ne sëñ maam moor nag dañ naa sëñ Modou Mamoun buñ ne sëñ Modou Mamoun di maam Cheikh ni maam Cheikh Anta ginnaaw nag ci maam Cheikh Anta la addiye da tàmbalee woon ba ak fii tey ngeen ñëw bés bii mu taxaw ci digg kër sëñ Mamoor si Kaap di ko di ko fi def si war ngeen xam ne ak si ngeen foo xam ne nag bokk na ci kër yi nga xam ne kër yi fàkk addiye ci la bokk muy kër goo xam ne nag it tur wii ñu ko tuddee muy maam Mamoor si Kaap déedéet sëñ Mamoor Mbàkke la tudd sëñ Modou Mamoun la ñu ni moo daa def bu gan dikkee ni ko ana sëñ Mamor muy demal nga seet ko ci sikaab ya te si sikaab nag boobu bu jëkkan lu rafet rek lañ ko tuddee woon kon lu foofu doon nañ fi maam Cheikh Anta nu dem a dem a dem ba agsi fii nu ko agsil taxaw ci ginnaaw sëñ du mii di ko def mu ànd aki rakkam ànd aki taalubeem ànd aki soppeem ñëpp nag it bëgg gën ko ci bëgg a ëpp yéene waaye moom nag dalu ci neex ëpp yéene ndax ki nga xaye bu tàmbalee ren jii tey jii bu ñu ko yóbboo ci ngoon ci lay tàmbalewaat loo wax muy sama addiya yi buy déwén kon kooku addiya yi ñor na ko kon loolee ko ñor nag daf caa xam dara kon ndokk bi nga xamee ni xam na fa addiya yi jëm ak xam na lan mooy addiya ba boole nu ci biir addiya yi kon Mbàkke jërëjëf boole gi nga nu ci boole nag yàlla na doon boole goo xay boole gu yàlla nangu la boole yàlla nangu la ak yonent bi sëñ maam Cheikh Anta sa maam ndax mbir boo koy liggéey mbaa nga di ko def da nga koy def foo xam ni fa ñu xam la am na ci solo lool ndax yor ko te xamoo ko moom ñàkk ko te xam ko sax ko gën kon ndokk bi nga xamee ni yor nga ko te xamu ko kon cër boobu bi nga xay moom nga taxaw muy cër kër maam sëñ maam Mor yàlla na nga ko leggaleel fi mu koy yéene mu yegg ba ba pare nga yor sa liggéeyu bopp di ko liggéey ba yegg fa ak taalibe yi taalibe yi itam li seen ñor sëñ bu moo di ni rek ñoom ñu gën a am rek ndax benn dërëm bu ci waay def ren bu déwénee yéene nga fukk kon yàlla nañ ko yàlla defal yal nañu yàlla defal barkeb daaru salaam yal nañu yàlla defal barkeb addiye yi ndax kat man mas na maa dem kenn nit liw ma ma dégg alaaji baara ni daaru salaam de leen dong la mën a def defal ma naqari bu ñu dajalee addiye te yógu ma ko ndax addiye yi salaam moom ku ñu ko jox te defoo ca lan ca war a defit bu ëllëgee borom Tuubaa day fay ña ko ca def kon gaal lañu ñu ni bu ñu ko tegee ubbi ko ni nay kay leen ñu tukki ku nay lem mbubb di ci dugal fexeel ba la kenn gën rafet mbubb dugg dugalal ci biir mbubb mu rafet bu ñu solo nga solo ni ñëpp waaye boo xoolee naa maa moom gaal gi wala ngay xool gaal gi ne gars yi xool leen gaal gi ñu yor bu ñu demee dañu solo yow ngay toog kon at yooyu nañ ci gën a dolli koo góorgóorlu ndax at mu ne day yokku loolu moom leer na kon nañ ciy gën a dolli koo góorgóorlu sëriñ bi noo la ciy sant bu baax ndax boo nu tëjoon itam duñ ci mën a dugg ci néeg bi kon noog bi nga ubbee néeg bi damm caabi ji ni kaay leen dugg ci njariñ li kon njariñ loolee nuy jariñoo yàlla nañ ci am ndam yàlla bu la ci kenn ëpple noo ngi lay ñaanal fan wu gudd yéen taaliba itam noo ngi ñaan ci barkeb sëriñ bi yàlla yokk suñuy xiiwal ba nga xam ne bu déwénee lépp luñ ci def bu déwénee nu man lu ko yéen ñii fi ñëw nag it di jël si waxtaan wi noo ngi leen di ñaanal fépp foo xay ay wax yegg na fa yàlla na fa seeni wax yegg ak seenu télé bu fa yeggee nag yàlla na doon wax boo xay bu neex yàlla la ak yonent bi sëriñ Touba yàlla na doon wax boo xay saytaane du ca am dara dara dara lu mu ca mën a def benn transe bu ngeen koy jël si yàlla na leen yàlla di yokk xelam ak yarub lépp loo xay nee nañu benn la na ngeen ko def benn bu ñu ne benn la mukk ngeen ni fukk la bu ñu nee benn rek yal na leen yàlla jox ikam ak xam-xam akum xel akum yar bu ngeen def ko benn rek bu ngeen ko defee benn rek di ngeen am njariñul benn ba bu dee ñaar ngeen def ko ñaar kon noo ngi leen sant bu baax ci ndigalu sëriñ bi noo ngi leen gërëm bu baax ci ndigalu sëriñ bi ak taalibe yi fi nekk ak magi taalibe yi nekk ci saal bi yëpp ak ñi njëkk ko juddug. addi moom day fii lañ ko war a jàngee ginnaaw nag ak daane bi dañ ko war a jàngee Daaru Salaam waxtu bu nekkoon suñu addiya ji xëy na som bi bari na bëriwut waaye liñ ci juble mooy wanewaat ne rek sëñ Tuubaa mooy sunu moom lañ yaakaar lu ñu am tamit moo ko moom di soññewaat ab wane lañ jubluwaat rek lu njàngat bi ëpp solo muy wane na ba léegi ñu ngi nangoo doon tay bi sëñ Tuubaa ku ko fi nekk sëñ Tuubaa ñu nangoo topp sa ginnaaw def la comme sëñ Tuubaa loolu mooy sas bu mooy sas bi ci bi ci jiitu ca tamit loolu li ciy jiitu woon addi ji ak joxe sëñ sëñ Gaawaan dafa féetoon foofu sëñ Tuubaa ndax lépp lu sëñ Tuubaa masa bëgg def lu xaalis di ko def sëñ Gaawaan la ko def loo ba fi jógee tamit suñ muut Maamun bi sëñ Muusaa génne àdduna sëñ Fàllu woote jumaa ji la sëñ Muud Maamun commencé woon di jox addi ji un million la njëkk a joxe ci déwén si 2 millions ci bari 1 million la ñu def waaye ci déwén si 2 millions la joxe almel gi li ko waral mooy bi mu joxee woon 1 million bi fi mu toog ci sens Sëñ Fallu daa am ku mu woolu mu ñëw am pour tax bi lii nañ ko def ci nangam lii ko def ci di ko wan ne ko li nga ma jox dugal naa ko fa nga ko war a dugal suñu maam ci déwén sa moom boolee ci almel wan ko ne ko soxluwu maa xam fi nga koy dugal loolu mooy histoire bu almel gi